daal nee na li ma la waxee waaw yéen daal fu mu ne nii jàpp leen rek bu ngeen ci jàppee rek maanaam koñ bi moom dina gën a baax waaw man daal moom xam naa ne te yow moom wolu naa la yow wóolu naa la sama waaye nga sama nit nga te dañoo yàgg bu ngeen jàppee rek dina gën a neex. daam yow daal li ma la wax du ma ci teggi yotaa nee naa la man du ma votel sa nijaay yow sa nijaay lim ñu teg fii lépp lépp lépp nga teg ci sa bët ñun mënatuñoo attaaye suñu buntu kër yi ma ko ah? taay mënatuñ ko mënatuñu dara dara du sabar du dara. du duma la may nga yeggale gis nga yow nene da nga am benn problème xam nga bañ nekk fii ci biir daana rek waxtaan nañu ba ba juboo baal boo génne si mbedd mi mel na maag yow waxtaan nañu woon bàyyi loolu gis nga nene man su ma sañoon lii ma la wax nii ah da nga ciy nekk parce que gi nga nene nag naa la xamal benn affaire de gi nga bëri gu euh, ci nu ko olof Njaay di waxee puus mu dem puus mu dem te man dama laa bëgg dimbali ndax sama nit nga si koñ bi ma bëgg la jàppale pour nga ñëw rek ànd si sañuy dem danga maa bëgg a jàppale. ci képp nag ma nga jàppale ba. bu dee sa nijaay moo yoon yónni soo demee nga ni ko voteelu ma ko tey voteelu ko suba pourquoi pas sax ñu dafa dafa ta il est temps ñu def parité. pourquoi pourquoi pas ñu jigéen ñu far jigéen. alhamdulilah waaye wa inna ilayhi raaji'uun waaye nee na yow moom da ngay tàgge nit ku dee wala yow li ngay wax ni xam nga fan nga musee gis jigéen di jiite ab ab gox foo ko musee gis biñ ko violé lu lu lu lu lu muy wax waaye nee na yow li ngay wax est ce que yow yaa ngi ciy bàyyi xel. yow moom yaa bàyyi ci li ngay wax. daam yaa bàyyiwul xel ci li ngay wax nee naa la sa nijaay man duma ko voteel man nee ak ñi topp sama ginnaaw yëpp duñu voteel sa nijaay. d'accord dégg naa li nga wax gis nga yow sa wax ji su ma ko seetee ba seet nen ne wax gi dafa am fu mu positionné te man xam naa ko gis nga géy moom àdduna du yàgg ba mu gañe kàcc bi loolu bëgg naa yéen ngeen teel koo xam yaa muy dégg. yow ci boppam yaa war a def sa bopp ni man. waaw voteelu ma géy voteelu ma sa nijaay. voteeloo géy voteeloo sa nijaay. kon yow maanaam jigéen la ñuy voté teg ko fii. ban jigéen fii jigéen buñ ci voté teg ko xaw buñ ko violé ñun ñooy perte te ñooy dëgg ci affaire yoo xam ne xamuñu ko. ah damaa waaru bii campagne bu keenee ñaadam ñaadam kii ne ñool lox ñool lox ma ne ko fii nar naa toj. comme guerre fii ne nii moom ma ngay woote campagne. heure bu ne sama kër fees dell man ko waaye yow lii la mu door mbaa jàmm nag yéen yéen a ngi woote campagne man damaa bëgg boo àggee ngeen a man suba la sama meeting de collectif nga xam ne man campagne naa ba pare Diouf nee na suba la meeting du collectif am ah, Kumba. du ma ko waxal sa bopp yow laa bëgg a waxal. damaa bëgg nga xam ni dégg naa ñu woon nga ci kër gi. Kumba damaa bëgg nga xam ne bu ñu nekkee ci problème ñu ngi ci problème kii boobu ba léegi gisoo ko mu dugg sa kër ndax man sama waa kër naa leen li ma war a wax ak ñoom wax naa leen ko yow nag bu dee ka nga nekkal mënul dara wala du la wax dëgg man sama kër gi maa moom benn quartier bi maa moom ndax maay chef bi. waxuma la teral la sama kër mais sa kër sax yow man naa laa déloger dootoo dëkkati sa kër. ah <laughs> sama kër gii nga wax de. sama kër titre foncier sama baay bàyyi ma ko ma doon na ko yow nga ne dootuma fa dëkk. waaw yow waxal leneen. looloo tax nekkub naafiq. Euh. looloo la taxu nekkub seytaane yow sama diggante kii ba ma ko waree takk amul loo ci dajul pour ma bañ koo takk. Hmm. façon yàq gu ne yàq nga ko. kon yow sa saytaane gi nga nekkee. ak sa rambaaj gi nga nekkee du tey. waa léegi xam nga lu ma bëgg xam nga lu ma bëgg waa cim yaa dégg nga ah, man ngay ngoo boog man ngay ngoo boog di ma ragaju yàgg nga koo def yàgg nga koo def géy ma nekk ci kër gi da nga koo ngoo boog di ko ragaju ba ma ma nga ne yoll mais na géej ma nga mel ni tàmba jàng léegi nag man du ma wax ak yow damaa bëgg nga génn ci biti damaa ñëwoon di dox sama fenn kan kii day génn kër gi ci biti ma mën a xamal dama mën a xamal su fekkee saytaan nga wala naafeq nga wala da ngaa bëgg géey def la wala da ngaa bëgg géey def la ñaaree ma fase la géey tàkk la munoo wax a wax wax ba jigéen tegu ci kàtt bi teggi nga yow benn affaire laa lay xamal rek nga sama nijaay ji lii mu yor nii jàppal na sax nekkul sax ay lu ñuy campagne ñun ñoo bëgg a campagne rek lii mbirum ndond la septième famille ci moom tey jii nii um, um, um, moom la ci ci ci ko dond ki kàtt bi te xam naa ne fu mu toll bu demee ba ñoom ñëpp jeex tàkk man mii di wax ak yow mii ah bu demee ba sëf sëf man maay roofu kon yéen xam ngeen ne yéen fi doon mbëkk nga mbiri te yow su ma mbë te yow moom su ma faloo yow su ma faloo yow mbiri góor yi nga nekk ci kon bi yow yow moom day teel a dakk yow yow day teel a dakk yow waaw sama nijaay nag boo gisee nag muy yenn saa yi muy remplir di def ay vingt mille ak ayu kenn xamul maanaam xel mi la léegi-léegi day fàtte mu ngi naan nag si man la ko jëlee waaye man sax mun naa am sax moom moom moom wàlla day day fàtte ci yu yu bare bare certificat de résidence bi ñuy defaree 200 mu koy defaree junni. zéro zéro yee yokku rek 5000 francs zéro yee yokku rek yow daam zéro yee yokku rek waaw léegi kaama waaw daam yow sa nijaay bu la yónnee balaa ngaa dem da ngaa war a sangu ba set ah daam instant bi hmm. yaa ngi may bëgg a rey maanaam sonn naa trop daam daam deel sangu sa benn bii dee ko fóot di ko paase ah yow benn bi da ah, yaakaar heure ma ko soño du ma sangu da nga naan ma sama benn bi naa ko changé te man benn bee ma saf fu ma neex moom laay duggee mais nag euh, naa la xamal benn affaire sama wax man du bari dama yàkkamti nii damay dem gis nga euh, yow fan yii passé natt bi ngeen doon organisé kan moo kan moo teggi woon. man mi taxaw fii manqué di wax ak yow man maa ko def yow campagne nga doon wax wala natt lu sayoon ci natt bi lan moo ci sayoon yoon dañ cee bokk wala sa mbokk bokk ci man sax maa manqué man mi taxaw fii di wax ak yow. lan doon waxtaane nga ni. nga ne kam moo teggi ndax yéen ñëpp yam ay band ngeen ay band ngeen waaw kumba kumba man du ma fi nekk di waxante ak dama waaw yow yow maa man nga ko jug ndax ci famille ci famille bu bon ngeen bokk ay traître ngeen yéen waaw waa jugal nga génn waaw jugal nga génn waaw man yow mën ngaa génn kër gi wala wala ma wax booy booy yow de amoo jom yow yaa ñàkk jom yow yaa ñàkk jom amoo looy rus doo toog doo waxtaan. ñooñu ma xaaral ma dem. jug waaw da ngay jug da ngay jug. may ma ko da ngay. bàyyi ma bàyyi jàmm day jug bàyyi jàmm day jug bàyyi jàmm day jug demul day jug demul dama lay laal sa musóor gi la naan yuru sa dindi. xoolal ba dama toog ah. kii day génn kër gi yaa war a toog bàyyi jàmm. kii day génn kër gi yéen ñëpp la ñu toogal yéen ñëpp la ñu toogal. yooyu eh ku ma toogal. non foog nga toogal sa toogaay yow foo mu tàng na waaw ma tàng yow foo mu tàng na foo bëgg rek ñu dem yow lan la yow tàng na lan la ngeen xam ne foofu bu ma ko takkee ci suuf maa ngi waxtaan waaye bu yéegee ci kaw xeex laay def deful fenn laa wax bu ma ko takkee ci suuf maa ngi waxtaan waaye bu yéegee xeex laay def eh, na nga sax yow ba fi bu jógee ah. déedéet ñooñu xam nga problème bu amee man la sama ko mooy borom dëkk jugu fi jugu fi to régler jugu fi régler yow yaa war a dem yow yaa war a dem lan la sama Kumba jugul ay waay ay waay wow wow ay waay Kumba jugul wàccam wàccam yow rek leen wàccam balaa balaa balaa xaaj wàccam waa dina génn de wàccam xanaa lii du jàmm ay waay génn kër gi ay waay génn kër gi ay waay Kumba génn kër gi Eminem de Eminem. Eminem noo leen defal coono. ah ñëw de ah ñëw naa de ah? eh, noo defal coono ah, alhamdulilah ay waay ah. waaw kan ma doon nu ngeen def alhamdulilah ma toog ah bàyyi ma toog fii rek bàyyi fii baax na ah? <laughs> ah fekk yi fa day maa ngi say vidéo dootoo leen ko defati.